ngi tudd Fanta première adjointe au maire de la commune de Souy dañu ñëw seet si roi bi ndax tey fu mu nekk nii moo fi représenté président de la république lépp lu loo xam ne dañ koy def fii ci département bi rawatina fii ci commune Oussouye foog ñu ñëw ci roi bi ñëw yëgal ko ne lii lañ bëgg a def bés bi bu jotee comme tey dañ koy ñëw nuyoo si ne ko bés bi jot na tey la mu yokkal ñu ñaan tey région de Ziguinchor yëpp a fi nekk ndax département Oussouye ñu ngi fi département de Bignona ñu ngi fi département de Ziguinchor ñu ngi fi jigéen yi enseignante yi ñoo rejoindre seen moroom yi nekk fii ci département Oussouye ñu fas yéene bokk feet bi ak ñun fu mu nekk nii euh, ren euh, thème bi euh, jotuma ko waaw mais li wutale suñu fête yi ñu daan def journée de la femme région bi yëpp moo fi wàcc ren foofu la uute bi am parce que am na ay département yoo xam ne ñoo ñu rejoindre fii ci suñu département Oussouye bi foofu la changement bi nekk waaw loolu moom ci àdduna bi yëpp la du Ziguinchor rek du Oussouye yëpp rek ci àdduna bi yëpp la dañu gis ne jigéen yi dañoo sonn trop ci néegu sëy yi am na ay góor yoo xam ne moom lu ñuy teg ci jigéen yi dafa metti ndax seen néew doole te jigéen moo yore kër kër bu baax jigéen moo tax mu baax nit sax góor mu baax jigéen a tax mu baax kon góor yi dañu war a di yërëm jigéen yi ndax ñun ñooy seen yaay yi ndax góor bu baax rek jigéen adduna bi bu baaxee sax jigéen moo tax mu baax moo tax suñu journée mars bii tey kontaan nañ ci torop may ñaax sama moroom jigéen yi nañu yokk muñ ndax boo muñee ci ngay am doom bu barke te boo muñee di nga sëy te fu ñu nekk nii kay muñ moo fi sës waaw jigéen yi dañuy dem dañuy tooñ góor yi mais bariwul bariwul comme góor yi góor yi góor yi daal ñoo gën a teg violence ci jigéen dëgg la gaa am na ay jigéen yoo xam ne dañuy teg violence sax seen moroom jigéen comme ñu teg ko góor mais bariwul fu mu nekk nii daal bu jigéen yi bu góor yi moo fës mm-hmm. waaw ci li ma yaakaar bu góor yi moo fës mm-hmm. waaw moo gën a fës ah ndax gisuloo uh, jigéen bu violé uh, moromam jigéen sexuellement te mu ngi am góor rek moo koy teg jigéen di nga gis jigéen nga nekk sa kër liggéey nga liggéeyuloo sa jëkkër day xëy dem yoonam même bu amee sax day jël mu dem yoonam yow yaay débrouiller ak say doom loolu tam góor rek moo ko mën a teg jigéen ak yu bëre waaw bëgg nañu mu deñ daal bëgg nañu ñu dem mu deñ bëgg nañu daal kër yi mu neex ndax tey foo gis góor di fa gis jigéen foo gis jigéen di nga gis góor tey ñun ñoo bokk àdduna bi kon nañu teg lépp ci suuf ñu am jàmm ñun ñëpp lonala sanala bu mu agen yan sanji jijakiko mo jakot ɓe fof kayana kele kuƴak nene linoma fana wita munone kete hulima hoolale ha sumen kama rosine i fananete ha sol très joli yo yo ne ko faalol ko ɓelowot in je wande ha mu dade yakumbaji holim hajakut hata ka guulo hane que su mevale sai mulele. Siele mu hunakul bande lehkon anahanolan bonekane babe etamai bande la kuka sumai. Inti siele sauyo. Nande jammu kone hinki babe kalakulam kalakun kole muleko. 만들게 수매를 고바줄 리조 지바 지바 주홀은 하노 min an hana mahate aile ya ha subula mula kanole no balance bu kulu bale po faral po faral fa anyela bu kolti bana ba amat ul mahumba hunne pande yi jori jo ka sumai hano de je jilob jigeetu hana han nahasu bula mulakanola enoseno eh, analeto mujakunjon wewuji maberut lohasale hata anale boneke tubu tongon labil fanfiyo nake fana be nakatabil banna jamaliye jakumonalol wewuji maberut aa uh -uh. Ah. Joo.